tamit nee na suñu falee Amadou Ba euh, euh, dina dina indi benn stabilité benn ñañañi ñañañaa bu ñu falee keneen que mën na indi perturbation <laughs> ci li nga xamante ni mooy défi gaz bi ak pétrole bi ci voilà quoi ci ci kii yi mhm. donc loolu yëpp boo ko boolee daf may yóbbu ci ma wax ni que ni si toutefois que yàlla def ni ñi nga xamante ni ñooy incarner la rupture mhm. benn Thierno Alassane Sall bi nga xamante ni dafa génne sax livre. Mm-hmm. tuddee woon ko le le le le le truc de de mm-hmm. le protocole de le protocole de l'Élysée. Mm-hmm. donc ñooñu tey jii ñooñu di incarner cette rupture ak cette transparence ku ci yàlla jox nguur. défi bi lay njëkk a xaar mooy li lay dimbali. mooy transparence parce que tamit euh, bu gars yi naan état de grâce bi du weesu trois mois. du ci jox ndaw ñi xëy mm. <laughs> dans trois mois on peut pas donner aux jeunes du travail tamit nañ a waxante dëgg mm. ci trois mois tamit mënuñ jël Sénégal def ko comme Paris mënu c'est impossible mm, gaz beeg pétrole bi li muy génne si trois mois tamit munagul feeñ ci ñun mais transparence te transparence boobu cin bu naree neex su baxee lay xeeñ ca prestation de serment ba mm-hmm. ngay xamee ni Alioune Sané mii ñu dénk cette fois-ci le mm-hmm. Sénégal tout à fait dinañu wan sérieusement maintenant léegi Sénégal ni ñu doon jëlee di ko noyé eh, les secrets d'État les secrets de ñaña ñi c'est pas vrai Alioune Sané dinañu wan ni lii mooy réew mi du ñu futti lépp nag gaa mm. mm. mais Alioune Sané dinañu réew mi am na caisse noire u neuf <coughs> milliards mm. caisse noire u neuf milliards bi man ci suma campagne waxoon naa leen ni dama koy supprimer wala bu ma ko supprimer moom dama koy jël di ko yóbbu lu ci ëpp ci askan bi Alioune Sané mi ñu doon wax ni ah man demoon naa gëstu ba bind naa livre xamal leen ni fii am na pétrole buñ ko tegee ci yoon Sénégal dina ci gis boppam à 75 pour cent. nii la ak nii ak nii. dinaa contrat yi lii laa fi fekk parce que ba léegi waxaguñu négociation bi nan la de. lii laa fi fekk dinaa xeex ànd ceeg yéen ba. ñu def ko ni ñu ko bëggee ñu def ko bëggee aussi. qui sera accompagné aussi par les Sénégalais. Mhm. parce que ñun tam dañu tàmm bu ñu falee nit. Mhm. ba pare rek. bàyyee ko di ko mhm. te ndenkaane bu amul saytu luubal ba dafay yomb. day il faut que nous soyons tous des sentinelles. tous des sentinelles je me rappelle Macky bi mu ñu defalee proposition nañu il faut ngeen ñëw exercer le pouvoir gouverner ak man. Alioune Sane ne ko pour te rendre service. et rendre service le pays mm. il faut que dëkk mu am ñoo xamante ni dañuy nekk dañuy jouer le rôle de pont entre mm. les les gouvernant ak ñi nga xamante ni ñoom lañuy ñuy gouverner mm. il faut que Alioune Tine continuer nekk société mu Moundiaye Cissé il faut que ma continuer di di di xamal askan bi ni nii la ñuy toogee fii nii la ñuy kiyee Y su fekkente ni suba beneen génération ñoo dañuy dañoo koy incarné Y'en a marre continuer li mu doon te booy xool sax noonu la fa demee hmm. tey jii nii Fadel Barro qui était le coordonnateur de Y'en a marre il est aujourd'hui dans le champ politique créé par Pastef et tout Alioune Sané bi presque dañ koy woowee le coordonnateur de Y'en mais des jeunes comme ay xafoor ak yooyu ñoo nekk di def le travail hmm. Hmm. yi ngeen di gis yëpp Y'en di ko organiser ñoom la ñoom la donc il faut aussi tamit suñu société civile boobu ñu am aussi tamit euh, le le le, le, le la hauteur tamit de de de de de céder ou bien de passer le témoin à une bonne relève. c'est important alors Aliou. attentes yi lan la kon ci keneen kii war a ñëw fas yéene jiite réew mi ci at yi ñu jëm. gis nga première chose mooy euh, erreur à l'allumage warul am gis nga en 2012 bi ñu dajeek président Macky Sall euh, bi mu ñu ne ñëw leen. il a dit textuellement. je vais vous dire ce que j'ai dit aux gars du, de gauche. N'ayez pas peur du pouvoir. Venez exercer le pouvoir. Si j'ai gagné ces élections, vous êtes pour grand chose le mouvement Y'en Donc, kenn gënu leen ëpp euh, mérite. Donc, n'ayez pas peur du pouvoir. bi ñu ko nee bi ñu ko remercier et que ñu décliner jàpp ni euh, dañu war a taxaw suñu posture sentinelle pour qu'à chaque fois qu'il aura besoin d'entendre la voix du peuple qu'il l'entende à travers nous euh, daf ñu ne ni quelque part vraiment maa ngi leen di jaajëfal libéré ngeen ma parce que j'ai tellement de pression venant des alliés mm-hmm. ku nekk mu ngi revendiquer ay post mm-hmm. au sein du gouvernement et les gens sont gourmands mm-hmm. <laughs> donc première chose xaw ma kan mooy donn le président qui sera élu à partir du scrutin de demain mais ñu ngi koy njëkk a évaluer ci capacité a à. gérer sa non à oui à résister à la gourmandise. waaw des de tout ce qui vient. ci coalition politique attention les dernières vagues là. waaw la plupart de classe politique bu bees bi. discours discours bi ñu jaay sénégalais ba ñu gëm leen bokk na ci loolu mooy la méritocratie. Mm-hmm. attention. ak la part du xam nga yéen a ngi naan. trois mois kenn mënu ci defar réewa ah. mhm. mais trois mois doy na pour les premiers actes qui sont posés évaluer les premiers actes politiques c'est-à-dire déjà le premier gouvernement qui va mettre mis en place nan lañ koy tegee mhm. est-ce que ça va être du gouvernement de bon sama allié yenn truc voilà pas de euh, gouvernement hier j'ai entendu Ousmane Sonko parler à je sais pas ban meeting loon seen meeting de clôture j'ai j'ai dit ah les alliés ouais il a dit il a dit je dis pas que ñoom ñooy gagné parce que ça reste des élections ouvertes mais moom dégg naa ko mu ne ñun bu ñu gagné woon mbir mi du doon pàccoo mm. j'ai dit ah insister waat doon du doon mbiru pàccoo il faut que même diaspora bi il faut que euh, voilà sénégalais yi gën a donc ça c'est des mots mais dans les faits ci application l'une des premières choses sur lesquelles le premier le prochain président sera évalué mooy doon loolu Ah, mooy parce que gis ngeen après gis nga bu ñu ci loolu nit ñi. Mm-hmm. parce que grand ci fànn yu bëri les choses sont la réforme yaa ngi fii on sait quoi faire. mais ñi koy conduire c'est-à-dire d'abord le leadership du président. waaw le leadership du oh, président. Oh. moo tax man vraiment j'encourage gis nga la jeune classe politique qui arrive là. Mm-hmm. pour man leadership du ci at. donc y' a beaucoup de candidats yi nga xam ne c' est des jeunes. y' a une candidate qui est très jeune. Mmh. ah y' a ñoom Pape yu jeunes. donc loolu du handicap. loolu aussi faut que ñu xam ko. Macron bi ñu koy jox France ñaataat la am. 40 la ñaata 39 39 ans. léegi nag il avait donc Macky bi muy nekk premier ministre il avait 41 ans. tu vois donc pour man le leadership et capacité bi bi muy am d' abord à résister à la gourmandise des alliés. deuxième chose poser ay actes yuy wane ni ne sa compétence la ñuy jiital dès le premier gouvernement wii alliés yi politique ça reste de la politique mais tey boo xoolee même ci opposition bi ñi nga xamante ni ñu ngi former ay alliance coalition yi coalition bu nekk am na ay kàngamu opposition yi nga xamante ni sénégalais yi xam nañ leen ci seen hmm. ci seen i compétence donc loolu aussi dina ci nekk mais Sénégal li ko wër les hommes d'affaires yu compétents tu vois secteur privé bi la diaspora domaine bu ci nekk nañu xool c'est qui les meilleures compétences qu'il faut pour mm. que Sénégal ñu mun ci liggéey pour man loolu c'est une première chose mm. parce que après leneen li ci topp mooy mm. mooy euh, réforme yi wax nañ ko loolu tout le monde la sait et man jàpp naa ni le prochain président bu toogee war naa am ay concertation yu large mm-hmm. jëm ci les différentes couches du peuple mu am waxtaan quoi. mais comme au début. oui mu am ay waxtaan parce que même résultat assise national yi ñu doon wax am na ñu ko porté tey ñu ci bëri dem nañ ko signé. Mhm. mais il y a des choses qu'il faut revoir en termes de prix war war nañ ko update. mais en même temps n'oublions pas que assises yi par exemple à l'époque Abdoulaye Wade moom daf ko rejeté woon ak ñi mu àndal donc am na ñi nga xam rejeté woon nañ ko donc yooyu yëpp dañ ko war a waxtaanee. Euh, pour xool quelles sont les priorités et nit ñi xam nañ priorité yi mhm. voilà démb rek gis naa juge dem mu def benn proposition sur les réformes de la justice quoi mhm. Mhm. et je pense que c'est une voie autorisée c'est xam nga ñun ñi nga xamante ni jànkoonteel nañoo machine machine judiciaire au Sénégal mm. quand tu lis ces propositions da xam ni li mu wax am na solo par rapport au conseil supérieur de la magistrature na lañ leen war a choisir kenn ki la président di choisir keneen ki assemblée euh, keneen ki euh, société civile mu proposé ko keneen ki c'est les universitaires ñoom ñoo koy kii ak yooyu ak yeneen ak yeneen réforme institution mais yooyu balaa ñoo yegg ci yooyu vraiment loolu la et l'erreur aussi qu'il faut pas commettre et je pense que sëñ Ousmane mu ngi koy wax le prochain président du Sénégal il va être le président buy non mais dès le début il va être fatigué parce que jeunes yi nii ah saa waay ah dañ non jeunes yi dafa am li ñu ils ont soif de quelque chose. et loolu boo ñëwee ngay tendeefal rek tout de suite dañu lay wan ni affaire duna parce que gis nga 2012. bi biñ fi falee Macky ñun au bout d'un an. dañ ne diggee bor la gar ca wax non bàyyi leen ko mu liggéey. loolu dootul am de. loolu dootul am de. donc du coup euh, les défis man je plais je, je plais vraiment kii gagné élection yi ci contexte et puis ci contexte bi nga xamante ni aussi y a des opportunités mmh, pour man vraiment Euh, loxo yi bu setee. ñu mën a ñuy confier les missions. ñu vraiment ñu ragal yàlla. te xam sacerdoce la. nga gis ay ministres yoo xamante ni dañ leen di fal. Mm. du ñu nekk ci seen i salon. Mm. di feete di mm. tëggatu di naan nos soucis d'argent sont finis. tekki nañu ay xawma la ak lan ngay gis ministres yu ñu yooyu bu jeexee. bu njëkk gars yi doon séddee waaye léegi ñun ñooy séddaate nga nekk ci tiitaange xam ni tu es au service de la nation. xam xam donc vraiment dañu war a dem ci yooyu. ñu tiit fal la nga eh, tiit eh, eh, surtout supprimer la voilà tu vois sénégalais yooyu ñu ngi fi gis nga sénégalais yooyu. très am doole trop. kuñ bëggul doo dugg. kuñ bëggul doo dugg. mais mais bon <laughs> waxtaan bi neex la trop mais ñu ngi may wax ne léegi tey ma yegg ci njeexital gi te mënoo fee toog itam te loolu amul am na question yoo xam te ne ni gars yi ñoo la ko doon laaj mais donc bëggoon nañu xam itam Alioune lii moom question yu personnel la mooy bi nga nekkee ca kaso ba euh, naka nga ko dundee donc. Euh, ndax gars yi génn nañu di di wax naan métti na maltraité nañ leen dóor nañu leen yow ndax dundoo loolu. non non non dun dunduuma loolu dunduuma euh, xam nga man moo fi nekkee di wax sama kaa alors qu'il y a pire que ce qui xam nga loolu aussi. <laughs> man daal sant nañ yàlla quoi one est la là-bas injustice moo ñu fa yóbbu. Euh, on était très libre dans nos têtes le léegi mooy nan ngay nekkee ci kaso bi ak nan nga koy vivre. Mhm. enjeu wu sa santé sa kaso ko. nan koy tëddee. sa voilà dan léegi jël man la quoi ay termes jël man pour man saa ngay léegi rejoindre na jiili. non c'est c'est ça. <laughs> donc loolu on était on était on était enfermé quelque part mais dans nos têtes libre. waay donc euh, pour des militants comme nous moi je le dis léeg samay mbokk dañuy kii c'est l'une de plus belles expériences qui me soit arrivée ci sama hmm. dund quoi parce que d'abord man en tant que hmm. nit nit li ma ci jàngee nit dans mon en li ma jànge li ma ci jàngee man pour ma parce que man jàpp naa ni Aliou Sané bi duggoon rëbës bokkut ak Aliou Sané bi génnee rëbës hmm. parce que li ma fa jàngee géej la man par rapport à moi-même man